قل هو درجة لا ميهاهوت الله أحد درجة لا ميلاهوت الله الصمد درجة لا ميجبروت جبروت lam yelit walam yuulat daraja la muy mëlëkoot lam yelit walam yuulat legi service yangi fi ak administration ku xey ñew ci malaka bi amé nangam wala préfet malaka bi amé nangam wala gouverneur malaka bi amé nangam ni ko may jarbaatu yalla wala sama doomu bajjal la mu xam ni waxuloo deug ndax lam yelit jaar sax waaw waaw léegi bari ngeen ci liggéey kenn du leen embêté intervention dootul am waaw muy malakut waaw lam yelit walam yuula léegi kay kuy intervenir subaak ngoon la jël malaaka yi nekk ci seen biro di liggéey amatul waaw walam yakun lahu kufuwan ahad muy naasuut léegi jeex na yàlla ne nu ngi ci àdduna àdduna nag am na fi noon mais amul fi nawle nangu na noon pour natt sunu volonté mais it amul nawle mooy naasuut di mulk àdduna bii ñu ne yàlla nangu na fi noon ma ngay xul ndax ñi ko mere noonu ko ma ngay xul ndax ñi mere jibril noonu ko te jibril deful dara motax tax mu ni lam walam yakul lahu kufu an ahad nanguna non nak ndax ma ngay xuloo ma nga takku mom yàlla bu takkuul rek jome fëkk pas-pasu nitam waaw moo tax ma ngay xuloo man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail فإن الله عدو للكافرين واو nga xamni duggu nga duggu nga na rubb bu ko defee haahuut bàyyi ko fa waaw haahuut bàyyi ko fa ndax mooy nature essentielle bu yàlla kenn du ko jege laahut mën na ca maye dara sax ndax mooy essence divine ba mu ko ñaareele ndax euh, nature essentielle bokkul ak essence divine bokkuñu ci boo xàmmee

yaa ko ni yow la ñu jublu allahu asamad ki ñu jublu te kenn nekkagul mu ne kon nag naam pare projet yi def ko ci alam bi nga xam ni mooy alamu archétype yi waaw waaw lam yelit walam yuulat ma la ko dikk waaw mu nekk le monde de formes waaw fokk malaaka am arwaax yi ku ne nag foofu lañu lay bindee muy ñeent ya ak juróom-ñaari asamaan yi nekk seeni province jeex mu des benn bi mu di alamu nasuut c'est le monde des, ombres parce que nous faisons dund ni dañuy yaramu matière te ko am yaramu matière dañu lay wutal djant. te ko nous wutal faire Nous ba nga am ker waaw de nasut juróomi daraja yooyu la eh alamu sut nag li ci xew moo ci xew yàlla tudd na aadama ak yonent yi mu ci jox privilège te jonkanu leen nag daf leen jox privilège ba noppi jonkanu leen ndax fasul yéen ñu te njabooti boppam yi ñoo tudde nit ndax ku leen exploité mu rey la ndax moo leen fi indi